mais vert mais mais ana waa Géejawaay vert Géejawaay kay lu nekk nii mais xam nga waa Géejawaay mbay mbay bay may filmé dëgg man lu may wax <laughs> waaw léegi léegi nañ nañ waxtaan tuuti rek ana waa Géejawaay <laughs> waaw baax na waaw aca père nuyu naa la léegi xam nga sama farce ka moo tax may que dama bëgg bëgg boo xam ba pare da ngaa service. waaw mbay teg maa dimbali rek. non da ngaa service. billahi yow yaay jeune pa boo xamante ne da ngay sol bu rafet da ngaa coofe roofe bëri doole. billahi xool daal li waaye xam nga marque wàll xam nga marque wàll wax ma ko. Euh, non yow wax nga ko. let's go. moo tax ñëpp a jox cër bi naa ñëpp a ko jox cër est-ce que xam nga ni interview yi mu doon def. Mm. moo defoon géejewaay. père yaa defoon géejewaay. Pape maa ngi lay jaaree. maa ngi lay ñaanal. te di wax ni yow ñëpp la bëgg. Mm, oh. ndax def naa ñaari émission DTV fa laa la fekk kii nag suma doomu deret kii suma doom la barki alaaj été suma doom la maa ngi koy ñaanal fépp mu bëgg egg yàlla na fa egg mais mbay tam maa ngi lay ñaanal yàlla suturaal la jàppale la ndax nit ku baax mbay daal en réalité benn défaut rek nga mooy baax bu ngóob nit ku lewat nga nit ku bari jàmm. Ah. man bëgguma ku def dara. Ah. mbay yàlla na nga am jàmm waay yàlla na nga am Balla. Balla ci jàmm. Ah. mu ngi fii ci eh, kër Aziz. xam nga bu Aziz wootee. Hmm. Jaw dina ñëw. Balla dina ñëw. Hmm. Géejawaay yëpp dinañu ñëw. Aziz moom àddunaa ko bokk. xuma Sénégal. mais àddunaa ko bokk. te Aziz ñëpp am ci moom cofeel yow li ngay sentir ci Aziz moo la indi uh-huh. li Pape di sentir moo ko indi uh-huh. kon yal na yàlla defal la jàmm defal Aziz jàmm uh-huh. ak bàyyi mboolem ku ñëw ci gàmm gi yal na la yàlla suturaal loolu daal laa la mën a wax mbay looy wax sa sa sa sa xarit Sa ma ngi xarit sama doom la sa doom la waaw sama doom la bés yenn saa yi nga sànni ko xeer nag non du sànni Sa Thiès xeer waaw dama ko cof rek te dootuma ko cof ndax sama doom non mosuñu am problème nit bu amee doomam. léeg mu redressé ko rek. mais mais moom da si daan mer di génn di wax. non mbay nag yaa ngi génn gaaw. <laughs> waaw mais yaa ngi Balla bi ngeen defee fii affaire bi neex na quoi. màkk sama doom. bu uh-huh. ñu fi dajee ci suñu soppe uh-huh. muy Aziz. mais dañuy dañuy bëgg dañuy dund àjjana. Uh-huh. ah mais kay kay ngay xaritu ñëpp xam nañ ko mais ah, ah, ah, yëg nga fan yi coow Aziz bi takk na jabar takk koy conseil si coow. mais lan moo tax nga may laaj loolu. mais sa kër fa la. non man yow yaa yëg loolu man yëgu ma ko. la mais yëgu ma ko xëy na yow yaa ma ko bëgg a <laughs> yow loo yëg siiw man nag lu ma yëg siiw. dama la ko doon bëgg a wax noonu léegi réseaux sociaux yi bëri woon na trop Aziz képp ku ma ci laajoon du ma ci wax. mais bu ma xeeb. yow mi may laaj dama la jàppe ni Bécaye Mbaye moo may laaj. wala Ngagne kon naa la delloo si cër bi la yàlla jox. Aziz mën na am lu nekk waaye maa ngi ñaan ki ñëw yàlla na mel ni Miss Ndiaye te ñëpp génn ci diggante soxna Astou Sy di soogam ñëw ak Aziz na ci ñëpp génn na dégg na ci ñëpp génn mhm. mhm. maanaam non déggloo ba fii coow amu fi. Mhm. dama ni. Mhm. sëy bi maa ngi ciy ñaan jàmm. Mhm. ci ñaan salaam. te la yow yaa ma informé. ma ne soxna soosu. yàlla na am mbaax gi Miss Ndiaye am. te ñëpp a génn ci seen gémmiñ. ndax Aziz war naa mën a am lu ne. foofu laa yemal suma kàddu mbay nga baal ma jërëjëf. naka gi nag eh, ah, la fi indi. ñun ah? gàmm gi lekk indiwul. naan indiwuñ fi Maodo wuñ fi indi guddi yonent bi la ñëw nañu fas yéene ko gàmmu comme ni ko Maodo waxee mbay jërëjëf. <laughs> non Balla Balla nag bëgg naa la nag nag bëgg gën a ka këjëb de këjëb da lay nax rek <laughs> këjëb da lay nax rek Balla maa la bëgg man këjëb da lay nax rek bëggu këjëf da lay nax rek. ñoom Sika ñoom Sika dañoo war a bàyyi woy Oustaz. salaamaaleykum ay bay ay bay gàmmu si nga. gàmmu si nga ah. yal na la yërëm di jaral. kooku nag xam nga ko jàng laay wax. Ndiogu. dañoo war a bàyyi Ndiogu. man ta'allama al-Qur'an Essa boa, essa boa. waaw mais Serigne waay. Serigne waay. ñu